ci sene info international jërë ngeen jëf ñu am mbégte contentement di leen dalal ci seen plateau yor yoru sene info si loolu ma di ko amal ba tey ak sama naataango bi di Boursine Coumba Ndoffène ñu daal si amal waxtaan bu yaatu Boursine ma bàyyi la nga nuyoo internetu sene info international soxna Asel maa ngi lay nuyu di nuyu itam mbokku internet yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel saa su nekk ci sene info point net sene info international youtube bi wante itam suñu différentes plateformes yi ci réseaux sociaux yi ñu leen jaajëfalaat bu baax kon di am euh, mbégte di àndaat ak yéen ci yor yoru Sene Info tey nag ñu fas yéene amal ab waxtaan si imam Tall mi nga xamante ne nii ginnaaw bañ koy seet lundi ba tey waa këram kenn amul woon benn nouvelle si moom lundi si 23h daal la ñu wax ne liñ ko gëj a jot démb nag si xibaar yi jot nañu ne. si bassin bu nekk si zone de captage retrouvé nañ kooram si loolu ñu bàyyi leen ngeen seetaan reportage bi euh, ak Boursine Coumba Ndoffène bassin de rétention bu Grand Yoff fii lañu fekk tey ci suba néewuk imaam Thierno Tidiane Tall mi ay mbokkam boobaak léegi am na ñetti fan xibaar bu tiis bi tàmbalee tasaaroo. man daal tey ci suba dama euh, benn minicar laa dama gaare sama oto fee ay 7 di dox di ñëw ci bassin bi bi ma taxawee nii ma dajeek benn waay mu woo ma mun ma sawaay kaay man ko waa Gayane mu mun ma sawaay yow lee est du nit ma insisté ma ne ko lii est-ce nit mun ma sawaay lii nit la de ndekete yow heureusement ndeke paa la ndekete. kii Cheikh Tidiane Tall la tudd imaam la gannaawam laa doon julli ñun euh, altine julli na tàkkusaan wazifa mu génni mu ne day seeti rakkam marché rakkam boo xamante ni atelier tëre la yor ba tey kenn mënatul gis taal. maa ngi tudd moom Mamadou Dia man maay délégué de quartier bi Darou Rahman 1 Darou Rahman 1 ah. Darou Rahman 1 la. fii Darou Rahman 1 la. man maay délégué de quartier bi fan yii yëpp ñu ngi ñu wër bi ñu jotee bi ma jotee information bi tamit dem naa saisir les autorités compétentes mhm. dem naa ba police def déclaration ñu def foofu. kii bi nu mu traité euh, réquisition pour mun a mun ko localiser mhm. police tamit def ci seen liggéey vraiment taxaw ci ba yàlla def ñu localiser ko ba gis ko tey tey tey lañ ko gis mhm. tu vois vraiment mu nekk affaire bu tiis bu nga xam ne daal vraiment quartier bi fu mu nekk nii euh, affaire bi doy na li waral cause mort bi nag xamaguñ ko waaw loolu moom dañ ciy bàyyi ci liggéeyu police mu def liggéeyam tu vois bu boobaa a xam lan moo motiver décès bi quoi. waaw reportage baa noonu ñoo ko gisandoo pour si ma bàyyi la nga indi si commentaire ñu daal di continuer. soxna Astel comme ni nga ko waxee rek euh, élément reportage yi yéen yaakaar naa am na lu ñu si jot a gis euh, mbir mi euh, bi mu xewee. yaakaar naa sax ñun ñoo nekk ñi njëkk joxe lii di xibaar bi par la suite tam tasaaroo na ci li nga xam ne moom mooy presse bi maanaam xibaaru disparition bi Euh, après tam dañ ko top di ko topp di ko topp ba démb ñu dégg malheureusement découverte bu métti boobu le ca Grand Yoff ci lii di bassin de rétention boobu nekk ci ginnaaw hôpital Cité bi maanaam ci zone ci zone captage bi muy loo xam ne nag lu métti la parce que moom euh, toog ba ñu woola euh, wax na ne sa mbokk gis nañ ko ci anam yu mel noonu lu doy la lu lu métti la ñuy jàll baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, famem wante itam waa population bu daar Daaru Rahman 1 bu Grand Yoff waaw foofu it ñu di benn précision bu ndaw rek booba léegi presse bi Daaru Rahman 2 lañ doon bind mais Daaru Rahman 1 la kon ñu ngi leen di jaale di jaale mbokk Grand Yoff yëpp ah di jaale Sénégal gi yëpp ndax lu métti la ak it euh, monde musulman parce que li mu nekk imam it affaire boo xam ne daal mbir mu mbir mu mbir mu métti la astel euh, wante nag booy xool lii day day day day day day day euh, sulliwaat problème insécurité euh, foofule ca Grand Yoff dinañ ko waxtaanee ci Grand Yoff wante itam ba léegi sax dinañ ko waxtaanee ci euh, Sénégal insécurité bi nga xam ne dafa am ci ci ci Sénégal yëpp soxna Astel. Abou comme ni nga ko waxee rek dafa nekk wàllum insécurité nekk lu metti loo xamante ne ni même ñi fa nekk nee nañu mosuñoo gis façon yooyu parce que foofu nee nañ sànni nañ fa lu nekk. Mm-hmm. ñoom sax ñu ngi naan bañ koy gis dañ doon naan saaku la mais am na ku ñu xaman ni ba affaire yi daal di jege see xam nañu ne loolu ñuy gis ci euh, saaku bi nit la imagine la nit koo xamante ne ni imam la moo julli jàpp moo julli ci jumaawam euh, cinq heures ginnaaw bi mu jullee ba pare mu tàggoo ni day dem seeti ji frère am mhm. loolu frère bi tamit moom ci d'après les informations jotu kaa koo gis ndaxte ba ay 23 heures woo na ko mais imam da ko doon naan maa ngi ñëw maa ngi ñëw mais si loolu ba tey xamuñu ndax euh, ba muy wax maa ngi ñëw ndax moo téye woon boppam wala ndax dafa amoon yeneen empêchement mhm. loolu tamit euh, waa këram ñu ngi leen di jaal di leen ñaanal yàlla may leen xolu muñ bu baax a baax ndaxte nekk na loo xam te ni dafa métti trop métti na ta doy na waar insécurité bi léegi métti na taxul tamit ñu wax ne euh, police su Sénégal defuñu seen i liggéey. Mm-hmm. parce que sécurité am na mais li ñuy wax mooy maanaam dafa doyul. parce que boo gisee bu ñuy wax euh, si wàllum politique ak euh, yeneen da ngay gis dañuy génn presque armée bi yëpp ay génni mm-hmm. fu nekk di nga fa gis policier mu taxaw si wàllum politique tout le temps da ngay gis yenn saa yi bu xew-xew amee comme par exemple bu ñu wooloo ku ni Ousmane Sonko wala dara. Euh, da ngay gis euh, police bi yëpp dañuy génn wala bu amee benn autorité buy génni da ngay gis euh, foo taxaw da ngay gis police génni ñoom ñëpp ñu taxaw encadré jeunes yi mais pourquoi pas yooyu ñu di ko def très souvent sécurité ñun tamit ñun tamit dañuy laaj benn sécurité dinañ ko soxla tamit si population bi dinañ soxla parfois mu am ñoo xamante ni dañuy taxawu ñuy am benn sécurité boobu mais bu dee si autorité bu war a génn kese la ñuy gisee boobu la sécurité dina doy waar torop mhm. dëgg la soxna Asel euh, jàngat yooyu nga ci def euh, am na solo mais man xam naa sax dinaa ñëwaat ci wàllum sécurité boobu sax euh, ñeel Sénégal gi yëpp wante dama bëgg surtout wax ba pare ci insécurité bi am foofu la di Grand Yoff mm-hmm. euh, man Grand Yoff la dëkk fa la màggee mais yàgg nañ ko dund yàgg nañ man personnellement dund naa agression agressé nañ ma nangu samay bagages ak demee noonu mais maanaam foofu Grand Yoff loolu dafa fréquent mm-hmm. genre agression yooyu dafa fréquent gis nga même euh, rey bi euh, ba fàttali bi ñu fàttali ko décembre deux mille vingt et am na benn gardien boo xam ne tam foofu lañ ko doon même même kii boobu sax même même zone zone boobu la quoi soriwul moom tam ñu rey ñu découvrir foofu Euh, Grand Yoff dafa bëri insécurité euh, te yaakaar naa yi war nañ war nañ ko war war nañ apporter war nañ xoolaat ba nga xam ay nu ñuy gisee solution si loolu parce que doy na waar daal surtout axe am na euh, bi nga xam ne moo jugee front de terre bi ñëw ba ci côté CM Grand Yoff ak yooyu quoi mais aliment boobu mënoo toog benn fan ñaari fan déggo agressé nañ fa nit war a nañ fa oto jël nañ ci kii dafa doy na waar daal doy na waar ci dëkk bu mel ni Euh, Sénégal tey bu ñu ñëwee ci insécurité gu maanaam Sénégal du ñu ñëwee général Sénégal nga xam ne 17 millions d' habitants la pour man nekkul loo xam ne lu rëy la comme par exemple ay état fédéral yi ngay dégg ay Nigéria à chaque fois ñaan kidnapping parce que loolu dafa rëy état fédéral ay c' ay pays yu bëri la c' est des millions c' est mais tey réew mu mel ni Sénégal nga xam ne 17 millions d' habitants la loo ci population bi ñu ngi concentré wu fii ci Dakar yaakaar naa ne ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités comme ni ñuy saytoo seen propre sécurité juñu nga ko léegi gis nga tey par exemple comme ni nga ko waxee bu fekkee benn euh, du ma sax personnalité du ma tudd rek benn mais tey benn personnalité politique wala demee noonu daal comme ni nga ko waxee bu fekkee dañ ko wóolu justice wala demee noonu da ngay gis ne dañuy dem benn armada sécurité ngay gis génne armée génne blindé génne fii mhm. alors que pour man même chose boobu waroon nañ ko def moment yi combat de lutte yi di am gis nga saa yu amee bu jeexee ay agression lay doon ñu dëkk côté boobu dañu am jàmm li ko dalee yoonu fa ñuy jóge stade ba ba ba ñuy ñibbi fi ñu dëkk ay agression lay doon agression agression léegi pour pourquoi pas même dispositif sécuritaire boobu ñuy génne gis nañ ko démb si mujj ci euh, convocation Ousmane Sonko gis nañ ko démb si mujj mais pourquoi pas même dispositif sécuritaire boobu nga xam ne moom la ñuy jël bu yooyu amee mais ñu jël ko bu ay combat de lutte amee ak yu demee noonu euh, bu ma ñëwaatee si kaw yaakaar ne zone bi ma lay expliqué noonu jar na sax muy am ay montage permanent de la police man personnellement j'ai eu à contacter ñi nga xam ne moom mooy euh, commissaire euh, police yi fa nekk commissaire police bu Grand Yoff Sarr mu fekkee dina ma dégg contacter naa ko avant moom am na ko fa nekkoon commissaire euh, Diallo mais même ak cas yi man bu ma gisee même cas cas d'agression affaire jël sama téléphone woo leen cas d'agression yooyu damay jël téléphone woote ni diw nangam côté boobu tam maa ngi koy woo population dañuy coopérer population dañuy coopérer ku ci gis dara mu kii jëlal téléphone nga woote nga woo waa police wax leen ko police tam information bu ñu la munti laaj population war nga mën a coopérer nga wax leen diw diw diw ñu bañ a nëbb kenn nit waaw tey ku dëkk ak nit nga xam ne kii def ko ñaaw teef ma ne loolu ragalu ma ku ma dëkkal ma xam ne dem ba police ma euh, ma euh, rek kalaame la foofu waaw kon it képp koo ne nii xam leer ne kii def katu lu bon la ak lu kii demal police nga dénoncé ko. ñu jàpp ko parce que tam Grand Yoff nekkul ne euh, loolu ñu fay tudd di fa tudd di fa di fa tudd ay ñuban ñuban mais mais mais Grand Yoff am na ñu baax mais tey bu ñu seetaan ba insécurité boobu tax ba ñuy collé à chaque fois Grand Yoff rek. même day yàq réputation. réputation bu Grand Yoff boobu ñu dëkk alors que tey Grand Yoff am na am na am na am na am na ay exemple ay Boubacar Camara il est de Grand Yoff Khalifa Ababacar Sall. ah il a de grand yoon pas mal d'autorité mun ma toogee bi di ko lim di ko lim domaine boo jël rek am na exemple boo ci mën a cité bu dëkk bu dëkk foofu la sa grand yoon kon nag euh, côté boobu tam maa ngi woo population yi dañu coopérer bu baax a baax ndax li nga xam mooy insécurité mm-hmm. ñu mën ko éradiquer foofu euh, ci ci ci grand yoon tam ci ci Sénégal quoi d'une manière bu ñu delsee ba tey si imam si imam Tall mi nga xamante ne ni euh, ñàkk na mi nga xamante ne ni gis nañu kooram démb fële sa bassin bu zone de captage enquête yi nag di firndeel ni kooram amul benn gaañu gaañu mm-hmm. ginnaaw euh, enquête yi loolu lañu loolu la ñu fësal ni koor bi amul benn gaañu gaañu waaye dañ ko dugal si saaku sànni ko fa loolu mooy firndeel ni dañ koo dañ koo boom enquête yi nag euh, police nag mu ngi siy def ab l'enquête daal na di ko commencé tàmbali nañu boobule enquête si loolu xam naa dañuy bàyyi ba autopsie yi ñu siy def enquête yi ba ñu fësal ka rek ñu daal di si ñëwaat pour parce que pour indi yeneen éclaircissement mais bu ñu duggee si loolu ba tey dañuy wax si wàllum sécurité rek mooy comme luñ doon mooy comme si luñ doon waxtaan sànq nii foog naa ne kaaraange mbirum kaaraange dafa nekk loo xamante ni dafa am solo si réew. Mm-hmm. si loolu dañ ko war a renforcer waat bu baax a baax parce que mënoo dëkk foo xamante ne nii. amoo fa sécurité comme mbirum làmb bi ngay wax euh, sànq man mi am naa ci benn cas parce que damay gis léegi bu làmb amee surtout côté bi ma dëkkee da ngay gis euh, du ñu sax am euh, fitu génni dañ leen di wax bu leen génni ndax tey làmb am na zone bi la zone ba la ñuy fii la ñuy génn imaginel yow nga war a génni dem defi ci sa liggéey wala nga war a génni dem am am feneen foo war a dem mais mënoo koo def ndaxte làmb am na ya ngi xalaat sa kaaraange loolu yëpp dafa nekk lu doy waar moo tax li nga wax sànq da see am solo torop mhm. mbirum kaaraange bu làmb amatee zone bu mbër mi di jógee ba si stade bu muy dem war nañu di ko xoolaat bu baax a baax def fa ay éléments yi nga xamante ne nii dinañ feye bu baax si si euh, dinañ feye bu baax si nit ñi nga xamante ne nii soit ñoo dëkk si zone boobu soit mooy ñuy jaar jàll. Mhm. damay appuyer ba léegi li nga wax rek maanaam suñu autorité yi li nga xam ne. noonu la ñu fonkee seen sécurité ñoom euh, dalee ko ci euh, président wàcc ci ministre yi ba ci directeur généraux yi ak yooyu tey gis nga président buy génn tey euh, foo turee da ngay gis policier bu waree tukki tey war a jóge pare dem aéroport alignement bi yëpp di nga gis ñi nga xam ne ay ay ay ay ay ay ay takk der la ñu taxaw ngir ngir saytu li nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy sécurité am it ñii di ministre yi ak directeur bi ñuy génn pare dina am dinañ leen escorter euh, tey koo si dem këram dina am euh, vigile dina am koo xam ne moo koy garde ak yooyu maanaam noonu ñu amee sécurité noonu ñu amee sécurité te maanaam loolu yëpp euh, li nga xam ne moom mooy gafakaay Sénégal maanaam xaalisu sénégalais lambda bi loolu la ñuy moom la ñuy jëfandikoo moom la ñuy utiliser maanaam tey dama gis ne noonu ñu fonkee seen sécurité ñoom noonu ñu si bàyyi xel noonu la ñu war a fonkee sécurité ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais dëkk sénégalais lambda bi quoi parce que tey euh, bakkan benn la quoi dund dund benn la nekkul dundu bi tey dund président bi wala dund ministre bi wala dundu benn directeur général bi gënul fort dund sénégalais boo mën di jël ah. kon nag euh, noonu ñu fonkee seen ay sécurité noonu ñu ciy veillé euh, seen sécurité ay doom seen sécurité ay bien nañu def noonu ba sénégalais bu nekkit nga sentir ne yow yaa ngi ci yaa ngi sécurité bu fekkee li nga xam ne moom mooy nañu yokk commissariat yi nañ construire ay commissariat Grand Yoff man tey Grand Yoff dëkk bu kii bu doy ni Grand Yoff benn benn commissariat boobu fa nekk doy fa d'ailleurs ab poste de police la woon zone bu mel noonu ak yeneen zone yeneen zone fépp boo xam ne forte concentration humaine dafa nekk nañu yokk commissariat yi poste de gendarmerie yi nañ ko yokk comme ni ma ko waxee sànq aussi patrouille yu permanent yu régulier war na di mën a am euh, ñaar exemple yooyu rek biñu jël sànq exemple yenn événement yi bu amee ni ñuy génnee policiers ni ñuy génnee l'armée bi non comme comme comme exemple bu amee ni ñuy ah. génnee policier mhm. nañ ko ak ak ak période Covid tam période Covid aussi war nañu ne am nañu assez kon man damay suggérer à ce que nañu def ay patrouilles permanentes nañu def ay patrouilles yoo xam ne yu permanente lay doon yu régulière zone yi nga xam ne gis nañ ne ay zone à risque la à haut risque comme grand yof fenn fu mel grand yof fu ma tudd noonu ak feneen ak feneen muy am daal loo xam ne lu régulier lay doon régulier mais bu ñu benn affaire comme comme bu dara xewee rek nga ñu génn wane def benn roulement bu passé passé na il faut muy am benn suivi suivi bu strict suivi bu suivi suivi bu régulier fa muy am ci li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy euh, sécurité ndax réew kat boo boo nekkee ci réew nag dem ba nga xam ne yow sécurité booy dox sax yaa ngi xalaat ne dinañ ma dogal li nga loolu day métti alors que sécurité dafa bokk ci rôle régalien état yi sécurité c'est bokk loolu c'est loolu loolu amul ay négocier c'est obligatoire pour gouvernement bu nekk nguur bu nekk nga veiller ki sécurité ak bien yu sa population euh, soxna Asel. waaw ba tey comme ni nga ko waxee nekk na lu doy nekk na lu doy waar comme ni nga rek euh, war nañ di def ay patrouilles très souvent si zone yi nga xamante ne nii c'est à risque zone nga xamante ne nii sécurité bi doyul ñu dolli ko fa loolu tamit nekk na loo xamante ni ñu ngi koy ñaan gi baax a baax mu defal ñu si ay mu doxal ñu si ay jéego. bu ñu jógee foofu tamit ñu waxtaan si beneen actualité muy procès Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang mhm. ndaxte Ousmane Sonko démb waroon na ko wuyu ji si benn procès Mame Mbaye Niang di ko accusé de diffamation di wax ni kii di Ousmane Sonko da ko diffamé waaye gis nañ ne démb tamit moom Ousmane Sonko mu jéewula démb wuyu ji gis nañ ko si réseaux sociaux yi mu yor bala mu demoon fubali loolu tamit euh, nekk na lu doy waar mais moom Mame Mbaye Niang demoon na fa àgg na ci heure bi te bu ñu génnee nag di xam na ni kii di Ousmane Sonko dafa daw Ousmane Sonko nag moom nee na jotul woon convocation bi si lu ay euh, avocat bu wax loolu moo tax moom mujjeewu la dem procès bi nag mujjee nañ ko renvoyé ba le 16 février ndax Ousmane Sonko dina wuyu ji wala ndax du wuyu ji loolu la sénégalais yëpp di xaar Bour Sine ñu waxtaan si mbirum procès boobu laataa ñuy tëj rek. waaw Asel comme ni nga ko waxee rek euh, procès boobu nga xam ne ñu ngi koy woowee procès de diffamation nekk ci diggante njiital Pastef li di Ousmane Sonko ak maam mbay ñaa démb nag lañ ko waroon ubbi man ko démb lañ ko waroon ubbi comme ni nga ko waxee rek nga xam ne sax mooy mooy Mame Mbaye Niang jot naa teew foofale ca tribunal wante nag Ousmane Sonko moom ñëwul li ko waral ay awkaam wax nañ ko ñu ne kon jotul li nga xam ne moom mooy. citation bi ñu ne notifié wuñ ko par voie légale maanaam jotu ko légalement ba tax kon euh, ñëwuñ ca mujjantal gën a kon ci lañu ñu dàq li nga xam ne moom mooy procès bi ba le 16 euh, février février bi ñu nekkoon le 16 ci la ñu wala amalaat euh, boobule procès ah, yaakaar nañ peut boobu bii yoon xanaa dinañ jël disposition yi kon ba ba ba lii tax ñu renvoyé ko peut-être du amaat njiital Pastef mën a teew ci boobule procès. Euh, xanaa rek bu ñëwaatee peut-être ci boobule procès euh, bu fekkee nag nar na am euh, si fois procès bi am ba ñu condamné ki nga xam ne moom mooy leaderu Pastef bi di Ousmane ko loolu mën naa xëjëmal bokkam ci li nga xam ne moom mooy élection présidentielle kon procès bi instant enjeu enjeu boobu la am am na enjeu enjeu de taille la si ki nga xam ne moom mooy njiital njiital njiital Pastef li si fois ñu condamné ko ci boobule procès mën na tax ba du bokk ci li nga xam ne moom mooy kon élection présidentielle yu deux mille vingt quatre lu si mën lu si am daal fi mu nekk ni kon euh, dàq nañ ko non xanaa leneen rek li nga xam ne mën nañ ko ci waxit mm-hmm. démb gis nañ ne am na ay xawoon na yëngu côté boobu côté ba mu nekk côté cité kër góor gi xaw naa xaw naa yëngu parce que euh, jeunes yi ñuy woowee patriote maanaam ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ay militants ak sympathisants am na ñoo xam ne jot nañ fa dem ndax moom à chaque fois rek procès noonu lay mel donte bi yoon moom man dégguma mu woote fenn dégguma mu ne na kenn gen wala dem noonu wante teewul am na euh, jeunes yoo xam ne xëyoon nañ dem foofule ca euh, buntu këram ci cité kër góor bi ba xaw fa jàmmaarloo sax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñoom ñooy takk der yi lu si mënti am daal renvoyé nañ ko kon ba le 16 kon dañuy xaarandi rek ba date boobu ñëw ba ñu xam nan la wane wan nañ di mujjee ki gëtam kon ci ci boobule procès waaw euh, Boury Sine euh, mooy comme li mu doon waxtaanee démb rek démb waxtaan nañu si conséquences yi waral à chaque fois bu ñu woowee euh, kii di Ousmane Sonko dëkk bi nar a yëngu ndaxte gis nañu ne démb école yu nekk si alentouru këram tamit am na si ñoo xamante ni sax d'après les informations mujjeewuñu tijji seen école ndaxte dañ doon ragal ay tension am si question bi may posé wu nag mooy lan moo waral à chaque fois Ousmane Sonko war a génni wuyu ji wala dara. station yi du jóg militant yi di génne di jàmbaarloo ak policier waaw soxna Assane man loolu dama jàpp lu bëri mën na ko expliquer man d' abord damay remonter bu fi ñu ko rajee woon ci li nga xam ne moom mooy fonction publique ci ginnaaw ga mu jóge fa euh, créer li nga xam ne moom mooy ab euh, partem woote nag euh, beneen système de gouvernement gëmloo ne moom daal système gouvernement moom bi indi mooy rupture am ci diggante France ak euh, ñenn ñi nga xam ne seeni doxalin dafa mel ni ba léegi koo xam ne rek euh, chef la buy joxe ordre ak euh, benn sentiment de panafricanisme boobu la la dugaale li nga xam ne moom mooy moom mooy langue politique gi bi ñu demee itam ba mbirum mbiram ak Adji Sarr xew moom mu taxaw ne comme moom mu jàpp ne dañ koo complot mu jàpp mbir mi complot la ñu bari it ànd ak moom ci ñu ànd ak moom it dañoo gëm dañoo jàpp loolu gëm ne mbir mi ay complot la kon ànd ak moom ci loolu ba tax na lu ko xoos rek lu xoos Ousmane Sonko rek da ngay da ngay gis ñu jóg yenn saa yi dañuy dem ba dañ dañ ci ànd ak mën naa ne peut-être mën nañ ci sax euh, bañ ànd ak euh, raison peut-être bu toog bu analyser waaw mais daal dañuy ànd ak li nga xam ne moom mooy seen bëgg dañuy ànd ak ne moom mooy seen bëgg-bëgg am na yoo xam ne sax euh, peut-être day mel dañuy dem ba xaw ma dañoo fanaat fekkee mën naa ko woowee terme boobu day mel dañ dañ fanatique si waa ji quoi ñoom daal loo leen wax te waxoo leen te waxoo leen Ousmane Sonko waxoo leen waxoo leen dara waaw leneen nit mooy euh, comme li expliqué rek moom ñi jiital Pastef daal jàpp na ne peut-être instant bi démarche bii daal euh, système bi muy doxalee ni maanaam méthode bi mu jël c'est euh, benn méthode mooy benn méthode de résistance am face à pouvoir bi mu jàppee ne daal dafa jàpp ne instant yi pouvoir bi ak lenn ci justice bi comme ni ñu koy waxee dañoo nekk contre moom dañ ko bëgg a faagaagal comme moom tax ba mu gis ne euh, riposte daal la mën a def moom daal dafa gis ne taxawaay bii rek ndax booy gis ne quoi qu'on puisse moom mooy opposant bi nga xam ne mooy opposant bi gën a radical face ak li nga xam ne moom mooy euh, gouvernement Macky Sall kon jàppale ne gars yi dañ koy complot ñeneen ñi ma la wax muy ñi ànd ak moom jeunes yi da ngay dégg sax ñu ñoom fi mu nekk nii nekkatul personne Ousmane Sonko mais ñoom il voit en lui un projet maanaam projet boo xam ne day indi rupture euh, ci diggante relation Afrique surtout Europe euh, notamment Afrique de l'Ouest ak relation ak euh, puissance bii di bii di bii di France ak sentiment boobu ñu àndal nag ak it taxawaay bi nga xam ne ak discours bi nga xam ne Ousmane Sonko à chaque fois moom lay tenir loolu day tax kon ba saa yu jógee rek yaa ngi gis saa yu jógee rek te nekkul sax ah nekkul sax ci kii bi rek nekkul sax ci affaire rek ngay gis ne Sonko saa yu jógee rek day am benn mouvement de foule nit ñu bëri dañuy jóg dar surtout ay jeunes euh, ànd ak moom li ma ko waxee rek parce que am na benn gëm-gëm boo xam ne am nañ ko am nañ benn boo xam ne il le porte il le porte en lui moom it euh, wax na leen ne yaakaar boobu euh, du ko tas kii bi nee na yaakaar boobu am nañ ci moom du ko tas comme daal loolu laa yaakaar rek comme li nga wax noonu moom daal saa yu jógee rek kii bi topp ko quoi am benn maaleykum sene info point net sene info international yéen a ngi suivre seen euh, émission yoor yooru sene info Buur Sine ma bàyyi la nga tàggatoo ak internet yi ñu daal di tëj ba suba. asel xanaa rek di la jaajëfal yo mooy bokkal plateau bi di jaajëfal itam suñu caméraman euh, Abdel euh, di jaajëfal mbokk internet yi nga xam ne à chaque fois ñoo ñuy bàyyi xel ci. suñu différentes plateformes yu seen info yi xanaa rek di yeesalaat sama njàll jëmale ci famille bu imam Cheikh Tidiane Tall wante itam mbooleem population bu Grand Yoff rawatina bu Daaru Rahman 1 di ñaan yàlla euh, xare ko aljana euh, fi mu nekk nii it dinañ ànd ak yéen ak famille bi ngir xibaar boo xam ne rek kon am na ci fas yéene leen koo digtal. jërëjëf euh, Bour Sine comme ni nga ko waxee rek ñu ngi jaale kii di famille Imam Tall mi nga xamante ne nii démb fekk nañu kooram si bassin zone de captage bi ñu ngi leen di jaale bu baax a baax di ko ñaanal rek yàlla yóbbu ko àjjana yi gën a kawe. si loolu xam naa dañ leen di bàyyi ba suba ba tey rek di rappeler ni procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang dañ ko renvoyé ba le 16 février incha allah internet tout sene info point net sene info international yéen a ngi woon si seen yor-yoru. Sene Info dinañ jox dig daje suba incha allah.